ne sunu sëriñ loo to jabal te ngi daaru kenn la maa fi tuuti jikkoom yoo xam ne war na jëpp doom di nekk di ko rey ci moom ndax mel ni moom lu jafe la bi ñu ñëwee ñu dem ba lu ñu xewloo di ay jafe-jafe muy ab dund nettali bu siiw boobu ba mu déggee ku ay am am sàq di ko jaay ci ñetti dërëm te boobu ñetti dërëm jafe na yàlla defu fa ñetti dërëm ya mu yónnee ci borom sàq mi ni na ko ko lebal saa bu sunu borom ñëwee mu fay ko ñetti dërëm yi kooku xamal ko ni ko sàq bi de mayewut sarxewut leblewut bu amee ñetti dërëm daal nee leen ko ni ñëw am sàq ma bu ko amul nag na ma fi bàyyil sama sàq ci ëllëg si ci tàkkusaan sëñ Ahmadu Ndumbe Xabaan indi fa addiye ñetti dërëm borom daaru muuti yónnee jënd sàq ma ñu ni dañ koy xët xët mooy lan mooy nañ ko tàmbalee bojj mu ni nag nan jàpp ci yàlla mi nu jàppoon ba bët sébbi ñu doog a xët sàq mi ba bët sébbee mu xët sàq ma ñu bojj ko mu jël ca dugub ja dal di dogu loolu sax maanaam détermination borom Daaru Muxti weneenu beneen tem la beneen waxtaan la dafa jël permis di ko xool ba yàgg mu ni dugub jii de su fekkee mbéy rek moo koy maye béy mooy maye dugub dootuma ko ñàkk loolu mooy jël décision loolu mooy détermination nit ki lu mu dugg daf cay dem ba jeex décider na xam na ni pepp kenn du ko fabriquer dañ koy béy am ko boo ko béy loo ko am mbaa da koy jënd moom nag mu ni bu fekkee mbéy rek mooy maye dugub dootuma ko ñàkk waaye noonu mu ko waxee woon ba mu jiyee dugub jë wax nañu ni euh, la mu ñoral ci dugub kenn xamul nu mu toll at mu ñëw mu yokku ba dàggaam yi nga xamante ni bokkul na ci tur yi borom daarul mooti borom dàgga yi danañ ko wax borom bayti borom maqaama ndaamal daaru koso borom laxasaay ndigg gi bokk na ci tur yi borom daar borom kaal ndigg gi moom kaalam lu njëkk muy dem ci baatam ci ndigg li la nekkoon da daan laxasaayu di liggéeyal sañ Tuubaa ba bokkoon na ci ay turam borom kaala ak ndigg yi bokkoon na ci ay turam itam borom dàgg yi man jëlee naa ci samay waajur ñu ni sàqi borom daaru muuti te boo gisee photo yi euh, sàq mooy grenier ci lañuy def dugub ji waaye l'ensemble des sàq nag fi ñu leen di dajale mooy dàgg foofa la ñuy bojje euh, bàyyal lu ñàng mi nga xamante ni ci la daan natt auteuru sàq yi njool la woon moo xamante ni deux deux mètres dix la daan mesurer ci lañu daan natt sàq yi sàq yooyu nag moom lañ daan dajale nga xamante ni ay seng lañu daan daaj euh, euh, euh, kii wi ñuy muur ci kaw jànk lañ koy wax ci wolof sàq yu ndaw yi di sàqum ñett ak yooyu lañu ñu mën a wutal ab jànk waaye yëlee ay néegi bar kaskare yi seng lañ daan daaj teg ko ci kaw sàq mi sàq yi dañ daan bari ba boo séenee kaskare yi defe ni dëkk la wax nañ ne ni gan daana ñëw kii Daaru ti bu séenee sàq ya bu seenee dàgg ya fale dem di nuyoo defe ni dëkk la mbay moomee mu jëloon décision lan la ko jural soo demee ci journal officiel bu France bi génnoon ci le 11 novembre 1938 le président de la République française dafa sélectionné woon deux cent cinquante cultivateurs agriculteurs ñaar téeméeri baykat ak juróom fukk yi nekk ci li France yilifoon nga xamante ni ay Tunisie Algérie Maroc ak même île France yi eh, ak pays AOF ñaar téeméeri nit yi ci dàqoon a bay ak juróom fukk ñoom la ñu sélectionné woon pour décorer leen ci décoration bu ñu tuddee woon ordre national du mérite agricole le président de la république française sur proposition du ministre des colonies ministre des colonies sur proposition du gouverneur général gouverneur général sur proposition du gouverneur du Sénégal gouverneur du Sénégal mooy saytu ñu dàq béy ci Sénégal wax ko le gouverneur général bi yilifoon Afrique occidentale française kooku rendre compte le ministre des colonies le ministre des colonies rendre compte le président de la République française ñu sélectionner deux cent cinquante euh, agriculteurs wala cultivateurs sur les deux cent cinquante ñaari sénégalais ñoo ci nekkoon di ñaari wolof soo demee ci liste ba le numéro euh, cent vingt neuf Ibra Fati marabu à Darou Mufti le numéro 160 Mouhamadou Moustapha cultivateur à Tindodi muy borom Daaru Muhti ak Cheikh Moustapha El Kérim ñoom ñaar la ñu sélectionné woon ci Afrique ñu wolof ñu boole leen ci ñaar téeméeri nit ñooñu ak juróom fukk li ci gën a kiimaane nag mooy Cheikh Moustapha ba borom Daaru Muhti di jënd sàq ma ci ñetti dërëm tey jël décision boobu wax ni bu fekkee mbéyee koy maye dootuma ko ñàkk booba Cheikh Moustapha ci Zahir mi ngi toll ci juróom-ñaari at ak juróom-ñetti at ndax 1888 euh, la waaye juróom tàggoog borom daaru mu si dem ci géej gi 95 kon à l'âge de 7 ans ba euh, Cheikh Moustapha El Kérim ak sëñ Fallou bi seen waajur di dem ci géej gi boobu juróom-ñaari at la ñu am kon bi borom daaru mu si di jël décision boobu Cheikh Moustapha juróom-ñaar wala juróom-ñetti at la am borom daaru jël décision ba di béy Cheikh Moustapha dem ba tàmbalee béy ba ñu koy décorer nga xamante ni jamono jooju kon waroon naa fekk borom daaru muuti moom dem retraite ndax ku am sa njaboot sa doom ngay béy ba muy dem ba mën a béy ci ni yow waaye gis nga yiwul ba moom ak Cheikh Moustapha ñoom la ñu décorer di di di di lu jar a jàng di lu am solo ndax. koo xam ni ba ngay tàmbalee bay ndaw la ci dal alxuraan jàng ci lay toll nga nekk ca nekk ca ba mu euh, majeur ba mën a bay ngeen di béyandoo ba ñu leen di déc décoration bi yéen ñaar ñu boole leen ko loolu euh, beneen affaire la mu am beneen décoration boo xamante ni ku ñuy wax sëñ Balla ture moo ko waxtu sëñ Abdou Khoudous nettali ko ko sëñ Abdou Khoudous dafa daan def màggalug moo ti bu ñëwee ci cérémonie ba mu ni wax ci sa waajur sax dafa bokkul ci ak waaye ku wow nit ba mu ñëw nga war koo wax ci lim koy doyee dara ci la doon wax ni màggalu 1985 am na waxkat bu ñu daan wax Balla Touré nee na ko ñaari lettre ci yow la mas a daje lettre bu jógee ci gouverneur ni la joxeel pepp mi ñu dundale ko prisonnier politique yi euh, euh, prisonnier de guerre yi pendant la deuxième guerre mondial ak leetar bu bàyyikoo ci sëriñ Touba ni la indil pepp ci kër gi ñu dunde ko ndax booba ñu yore woon magasin yi ci njaareem eh, ñoo waxoon sëñ bi ni ko dund bi day jàpp nañ ni dana manqué te Cheikh Abdoul Khoudous nee na sëriñ Touba dafa bëgg li ak njabootam daan jëfandikoo daa bàyyikoo ci borom daarul mooti ndax lu bàyyi bàyyikoo ci borom daarul mooti rek lu alal la lu halal la lu dagan la ndax ba mu feeñee sëriñ bi daf ko njëkkante ak seytaane jiitu fa seytaan yi sëñi cëri borom daaru muuti blende ko ba quatre-vingts yi mu dund yépp lu mu jëf rek lu xalaal la lu dagan la moo tax sëñ bi dafa daan bëgg li waa këram di jëfandikoo di bàyyi ko ci borom daarul mooti ba mu ko wooloo mu ñëw mu ni ko dañ maa wax ni ma dey euh, dugub ji dund bi dana manqué borom daaru muuti ni ko bu sunu borom amoon ñetti at yoo xamante ni tawut ndox laalul suuf sax du tax euh, dund bi manqué ba mu ñëwee ci la bojj mbojjam mu rëy moomu nga xamante ni sëñ Mor rew Balla mu àndoon nag Baye Omar ngir dem njaareem jëndi ay saako euh, li ma bëgg wax rek mooy euh, décision ba mu jëloon ci mbay gis nañu li mu ko jural ñaar yooyu rek doyoon na dem ba ñu sélectionné la ci ñi ñi dàq bay te booba France euh, ak ak ak yeneen pays yi développement maanaam seen demoon nañ ba egg ci am jumtuwaay bu dul ay tracteurs yi di machines yi ñuy takk ciy fas borom daaru musiba ba semoir sax amu ko dañ daan konk wala ñuy larmet di di larmet am ñuy ji pepp mi itam dañ ko daan faro waaye la mu doon ñoral ba fi ñu toll ñuy béyee ay tracteur eh, kenn ñoralul lu ñu toll kon la taxoon eh, la le gouverneur gis mbéyam wax ko le gouverneur général mu wax ko le ministre des colonies mu wax ko le président de la république française ci seen rapport yi ñu doon bind ba ñu dekoore ko loolu mooy wane boroom borom Daaru Muxti ak développement thème la yoo xamante bu ñu ko doon waxtaanee muy ñaari thèmes yi rek di élevage ak agriculture jëf na ci jëf yoo xamante ni ba fii nu toll ba mu fi bàyyi koo ak léegi soixante-seize ans la waaye fa mu eggoon ci mbay kenn eggu fa kon damay bañ a guddal waaye daal lii mën nañu koo jàpp ci borom daal mooti ak développement te mooy ñaari secteurs yi di élevage ak agriculture di mbéy ak sàmm borom daaru muuti eggoon na ci foo xamante ni bii euh, kenn eggu fa dafa amoon waxam juré ja ngir ma daaneele ko daf doon wax ni man duma doon fóore ju jaar ga di bokk il faut ñu leeral fóore mooy lan mooy boroom xam-xam ab sëriñ jaar nga mooy lan mooy boroom yi nag kuy sàmm mu ni man duma doon sëriñ bu jaar nga di bokk loolu mooy lan mooy sëriñ boo xamante ni bii day jàngale alxuraan yor ab xam-xamam waaye amutu béy amutu nag amut ganaar amutum soow bu ko soxlaa ca jaar ga ja lay dem muy sàmm ba ngir kooka bokk ko kooka moo koy servir soow ak ndawal mu ni nag man déedéet man duma doon sëriñ boo xamante ni bii jaar ga daf koy bokk man ab sëriñ laay doon di di di di di eh, borom xam-xam waaye nag jaar ga la mu am ci ak jur ak soow boo war a bokk sëriñ bi war a ñëw di ràmpe walla muy xaw a wàññi darajaam ci kanam sàmm bi jarga ji pour mu jox ko ci soow meeg ndawal gi déedéet mu ni man duma doon sëriñ boo xamante ni bii jarga da koy bokk du ma doon itam euh, euh, koo xamante ni bii daal lim mu bëgg wax mooy euh, du ma rampe mukk wala may neexal ab sàmm ngir mu di ma jox soow wala ndawal damay doonum sëriñ ba noppi ëpple ko ko moom jarga ja ëpple ko soow ak ndawal kon du ma ko ca neexal eh, ngir mu di ma jox soow ak ndawal loolu mooy du ma doon sëriñ bu jaar ga di boq muy wax joo ni bii eh, wax wax bu am solo la du ma doon sëriñ bu jaar ga waaye du ma doon itam sëriñ buy bokk jaar ga yo ñaar yëpp bu ci nekk rek mooy eh, li mu bëgg a wax mooy sàmm ba ndawal la am ak soow di sàmm doon jarga man damay doon ab sëriñ ba noppi doon jarga du ma neexal sàmm mukk ci ngir mooy jox soow wala ndawal ndax na mu ko amee noonu laa ko amee mbaam ma ëpple ko ko kon euh, suñuy màggal Daaru Muxti dañu war a jéem a roy ci jikkoy borom Daaru muuti ak ay jëfam moo manoon ci jaamu yàlla man ci liggéey ba képp ko bu fekkoonte ni tey roy nañ ko ca ndax moom këram kenn daaw fa génn sax di wuti xorom muy sal ngir def ko ci togg yi lépp lu ñu war a jëfandikoo rek ci biir kër gi soow mi tëgët yaa ngi fi da ngay rek def ci laax bi ndawal gi dañuy jàpp ci ci ganaar yi wala euh, wala walla wala euh, gàtt yi maanaam du génn biir këram di wuti dara dara même matt matt mi ñuy toggee am na jenn rakam ju ko mas a gane si euh, Mbàkke Kajoor sëñ sëñ euh, euh, Baye sëñ Sakho moo koy nettali loolu dara nekk ñu mën nañ jox mooy maam Cheikh Anta mas naa ñëw seet si ko Mbàkke Kayor fi ko borom Daaru Muxti dalal maam Cheikh Anta dégg lu naan dip dipp dip dip ba ci tàkkusaan ba muy dem di tàggoog borom Daaru Muxti mu ni borom daaru ndax da am ay naar yuy wulli ay der man kat fi ma nekkoon dama fa dégg luy dipp dippi rek borom daaru Muxti ni ko taalibe yi taxat yi day seen say matt yooyu ñuy yendiku moom nga doon dégg noonu nga xam ne say matt ñuy dóor ci suuf mu nan dipp nan la war a toll kon nga xamante ni matt mi sax daaw ñu génn wuti ko kooku mooy borom Daaru Muxti xam naa balay màggal gi danañu dellusiwaat ci beneen secteur maa ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf nasrul sëriñ moo a jabanta mi ngi daaru kenn la maa fi tuuti ay jikkoom yoo xam ne war na jëpp doom di nekk di ko rey ci moom ndax mel ni moom lu jafe la